asalaamaaleykum yéen mbokk yi nga xamante si ne saxoo di seetaan seen internet bi nga xamante si moo di murid point info tey nag ñëwoon fii di leen présenté seen émission Ocass online ñu seet si Longoor Mbaye Taïf ñu bàyyi kom mu présenté wu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu man la Serigne Longoor Mbaye Taïf euh, dëkk Touba ak Taïf ak Longoor. ñu gën maa xam ci sëriñ Mbay Taïf juddoo Taïf euh, tarbiyoo sëriñ mbakki soxna loo bëkk nekku ko ah dëkk ci dëkk bi nag di euh, fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ci fu mu fi doone rek fu ne waaw. sëriñ Mor Mbaye sëriñ Mbaye Longoor ñu gis ni nga ko waxee am na solo torop ñu doon la laaj liggéey bi nii lan moo ko waral ci affaire courant bi nga xamante si moom ngay liggéey affaire solaire bi. waaw loolu li ma ciy wax du bari ndaxte man solaire bi duma ma technicien technicien yi ñu ngi fii danañ wax ak yow da ngay leen jël xañ na ci bureau ba bu dee ci affaire chantier bi nekkit euh, li ma ciy wax du bari li ma ciy wax tuuti rek laay xamal ne xam ne ñun li ñu njëkk a tax a jóg te jàpp ne nun danoo doon nit ñoo xam ne bi ñuy bind sëriñ Touba tax ñu bind ñu lépp lu ñuy def itam Serigne Touba lan cay xool di ko gis liggéey bi ñuy def muy société bi ñu créé di ci liggéey Abdou Mbacke Ndaw la maire jox nu liggéey bi nga xam ne jàpp na ne mooy suñu liggéey bi gëna am solo ci nun ndax dafa tolloog joge Mbacke jëm si tuuba ñu teñ tolloog Daaru Salaam gi ñun njëkk koo def loolu dama xam ne dafa am baatin baatin bi mu am mooy sëriñ bi kenn ku ne xam ne Daaru Salaam la njëkk sanc ci Touba doo ko jox maam Cheikh ñëw sanc Touba waaye bi yàlla dogalee mu di ko sanc li ma ne wax sëriñ Saliou Mbacke moo ma ko wax daf daan jóge Daaru Salaam gi bi muy wër Touba di ànd ak Modou Mokhtar Mbay mi nga xamne mo jur sama bay modim tiatam Modou Mokhtar dana and ak sëñ bi ñew di wër ci Touba sëñ Saliou daf ma wax ne ma ci mbale mu ñu organisé seen mi day dama ci gis bi baba man ak sëñ Abdourahmane sëñ Abdouloo mom sëñ seub sëñ Daam abdourahman lolo ak man mu ne nu yeen kët sëriñ be len di mo len di baleloo ndax sëriñ bi ci bopam li ñuy wax baw naan daw ko def amna sumbu ku fi ci sama gannaaw bu taw masaa jot te tawut day woo sëñ daam Abdourahmane loo ne ko baleel sumpu gi ba mu set nga maase ko te bu fi ab tànk tege nee na suñ ko masaan def rek bu bë dana balaa bët sete dana taw sëñ Tuubaa noonu la daan baawaane lu xaalis bii liñ ciy gañ ak intéressé wu ma li ma bëgg mooy lépp lu ñuy def ci diggante Touba ak Mbàkke ak mu doon loo xam ne dañu ci am ngërëmul yàlla ngërëmul sëñ Touba d'abord te dëppoog loo xam ne day neex sëriñ bi ci zahir ak baatin lolu moy lima ma doon introduire bàyyi ñi nga xamne ñoy technicien techniciens yi moo xam ci bureau ba la mo xam wa santé ba la ñu àggale loolu rek la ci bëggoon wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf waaw señ khadim ñu fekk la fi ngay travailler lu mat sëkk sax sha allah ci entreprise MSFS bi nga xamanté ci moy señ Mbaye longor ñu la doon laaj sa taxawaay ci entreprise bi lan la waaw salaamaaleykum ñoo ngi ziar d'abord abord ñoo ngi ziar ñi ñuy sétane ñëpp di leen jégalu di wax né bon MSFS dirigé par señ Mbaye longor ben entreprise la boo xamante ne yënguwul ci solaire rek comme ni ñuy gis ci panneau yi day yëngu ci lépp décoration intérieure extérieure espace vert fer forgé mosaïque en verre mosaïque en carreau et j'en passe quoi ak yeneen ak yeneen donc euh, boo gisee man ma bëgg di liggéey ak sëñ Mbaye Longor mooy tey bu le bu defee ay effort ba def benn benn défi def si benn job moom mu dem jëlaat ay moyens yoo xam ne ay moyens supplémentaires la dañ ko cee teg dem ba kowet jënd ay affaire yoo xamante ne day rafet ci dëkk sëñ Tuubaa bi ndax sëñ Abdou Lahat moo ne woon fii ak xàll bi demul ba mel ni euh, or rek Touba rafetaayam génnagul donc buñ gisee benn genre ku dëkk biir Touba di def loo xamante ni dañ ko daan jéggaani ñun dañ koy saluer nekk ay jeunes war a topp si ginnaawam war a job dëkk bi ndax dañ ciy am fay déjà ba pare am ci fay suñ Touba. waaw Cheikh Mbacké Sylla ñu la doon laaj ci liggéey bi na nga ko gisee ak sa taxawaay ci liggéey bi nag. Euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax te leen xamal ne liggéey bi. sëñ bi mu ci wax dëgg la sëñ Bay Longoor mu ci wax dëgg la ndax Pastef boobu mu wax moom la ci amee ndax daf ne woon projet bi buñ ko ko joxee te gañewu ci dërëm sax ñu def ñu def début bi te gañewu ci dërëm dana ko liggéey ni mu baaxee te ginnaaw bi ñu ko defee sax bay wax ne danañ ci am nangam nangam loolee da ko delloo waat bay wëri laneen lu mu ci dolli ndax nee na projet bi da koo ñor ndax tàmbali liggéeyam ci Touba diggante tuubaa ak Mbacké dafa am lu mu sémbale ci moom mooy li mu léegi li mu wax te loolu xam naa ko parce que montant bi ñu xalaatoon dañ ko dañ ko élever mu kawe ba romb ko mais teewut itam ma ngay dem di wuti yeneen yoo xam ni da ko fiy def pour bëgg barab bii ni ñu ko séentoo woon taaru mu raw lu ni mel gën a rafet gën a gën gën a taaru. waaw mbokk yi comme ni nga xamante ni si moom la ñu ko waxee woon rek jóge nañ fi nga xamante ni si mooy place publique bi ci Mbàkke ñoo ngi wàcc fii ci Touba marché Daaru Xuddoos fi nga xamante si mooy bureau bi nga xamante si moom la taxawal fii di entreprise MSFS ñu fas yéene indil li nga xamante ni si mooy wàllum courant di liggéey ci wàllum solaire ma ànd ak sama caméraman ñu dugg ci biir wan leen matériel bi d'accord donc ici on est ñu ngi si ñu ngi si magasin si suñu C'est site euh, magasin donc fi nga a des matériaux, comme les batteries donc euh, les batteries il y a tous les moyens donc aussi on a aussi des panneaux solaires de euh, les panneaux solaires de de de 100 jusqu'à même de 10 watts jusqu'à jusqu'à 300 à 400 watts ici à watts très quand même donc on a, on a, on a des panneaux aussi. Et puis on a aussi des, des, hum, onduleurs, et puis des, des convertisseurs aussi. On a fi ay convertisseur et puis ak ay onduleur donc lu melni donc amnañ ay batteries xam batteries euh, lumineuses donc de 12 volts à 100 ampères donc qui peut durer même 20 heures. Voilà, euh, de vie, c'est euh, à, 20 heures. Donc, même les batteries, on a aussi des batteries de 200 ampères aussi. Donc, batterie aussi, vraiment, batterie, batterie, et puis, nous mettons. Parce que Afrique, on dañu un batteries qui si très tang. Nous avons un Touba, avec wër donc faaw nga am batterie yoo xam si dafay dafay dafay dafay attan bi voilà même si que sax fi nga ko def noonu day laaj sax muy am muy ventilé wu doo fekkee da nga ko def ci ben ci ci ben ci ben ci on dirait ben ben caisse boko ko daayoo mais teewul fay def batterie il faut que muy ventilé wu quoi ndax mu sedd Touba dafa tang donc ñun am nañu fi ay batterie yu baax machallah yo yoo xam si dafa dafa ñu mëna coono coono lool et puis le durée de vie c'est à 21 donc batterie mëna yag trop de de batterie day durer day durer jusqu'à jusqu'à jusqu'à 20 ans si si si si si si sont des bonnes batteries voilà comme les lumineuses là donc et puis c'est en zèle aussi aussi, donc, on a aussi des panneaux, des panneaux, des panneaux

trucs euh, là-bas donc aussi on a des ampoules dedans et, et dehors voilà donc et, puis ñaari panneaux yoo xam ne si c'est 200 watts ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo dox ak quatre batteries de 200 ampères donc xam nga loolu xewali la tant ñun fi fàtt nañ courant courant bu soobee yàlla dañu ko faire Inch'Allah, dans taala aussi on a on a aussi on a aussi ay ay on a aussi ay ay frigo frigo aussi boo ñewé amna ay panneaux yu mi andal incha taala ak ay ampoule kit aussi voilà kit la day ànd ak ay panneaux ampoule ak des batteries bu fekkee da nga ko bëgg quoi donc ñu ay panneaux ay panneaux de 300 de 300 watts crête des panneaux de de 200 watts crête des panneaux de 100 watts crête de jusqu'à 10 watts crête même on a on a on a on a ça ici aussi. Puis on a aussi des des on a aussi des des pompes solaires voilà des pompes comme ñi am ñi nga xam am seen i am seen projet ñiy bay voilà ñi nga xam si dañuy dañuy dañuy dañuy bay donc ñoo xam si dañuy bay bëgg bëgg bëgg pompe solaire. donc ñooñu nopp noppalu nan maanaam ci ci gaz gasoil bu cher yóbbu ay groupe électrogène ci àll bi donc on a nos panneaux solaires donc on a nos on a aussi no nos nos donc bi nga gis ni donc moom moo nekk euh, pompe pompe solaire bu bu bu 700 watt la. voilà pomme wala solo le 700 wala 100 yi moo nekk nii donc euh, fan yi passé def nañ ci boo de demee ay Louga daanaka ñoom ñëpp leçon yi dañ koy jël ndax fof dañuy bay vraiment aussi c'était tout et puis vraiment euh, donc euh, li des sax moo ëpp parce que dañuy soog a commencé ne incha allah matériel yu bare bare bare ñu ngi ñëw aussi pour j'appeler pour j'appeler askan pour j'appeler ñi nga xamante aussi donc seen loxo jur seen ginnaaw voilà loolu rek moo tax a donc panneau donc li ngay gis nii donc fii ñu ngi fi ak avec deux panneaux solaires de, de, de, de, 200 watts, de 200 watts, donc ça fait 400 watts. Donc les 400 watts, donc moi alimenter sur bureau de souffle. Inch'Allah après nous watts nous holko. Moi alimenter sur bureau de souffle et puis avec avec ampoule. Donc dingue si mana am, dingue si mana am, donc euh, ay ampoule bari bari lu ci plus de plus de 10 ampoules. Donc mon gars am des plus de ampoules de 5 watts. donc mën nga mën nga di nga am aussi sans télévision donc say computer lu ci mel ordinateur donc mën nga mën nga ko ci mën ko ci euh, euh, taal donc taal c'est aussi ces ventilo euh, plus de deux l'eau ou trois ventes l'eau nga de plus parce que ce sont des panneaux à haute tension même. donc tu as vu on a on a quatre batteries de de 200 ampères. Donc on a quatre batteries de 200 ampères, donc ça fait combien Donc ça fait ça fait ça fait ça fait euh, 800 800 800 ampères. Donc yo xam si moy réserver courant bi pour goudi bi ñu mëna ñu mëna am ñu mëna am liñ soxla ci kër bi Donc les batteries aussi sont euh, sont branchées aussi en série. Voilà donc batterie su fekkee panneau yi dafa nekk en en en en série panneau yi dafay batterie yi dafay nek en série fekkee batterie yi dafa nek en parallèle panneau yi aussi dafay nek en parallèle donc installation yi bokul donc installation bi euh, euh, ça ça ça se passe comme comme comme comme ça donc bu bu fekkee da nga de câble bi dafa dafa dafa dafa ñëw d'abord dafay ñëw si dafay ñëw si régulateur de tension bi donc euh, donc fi nga jëlawaat câble encore pour indiquer si. waaw Serigne Saliou mu mel ne dañ leen a fekk ngeen nekk en chantier nii xam naa ne yéen a ngi taxawal quatre places nii su paree ci ngeen fas yéene exposé seen i waaw waaw donc comme ni ma leen ko waxoon rek donc toujours c'est la MSF1 donc comme si biir ngeen gis ngeen ko comme dañuy dañuy soog a soog a door donc et puis ñu ñu bëgg loo xam ne si dafa dafa dafay avancé trop trop trop donc loolu moo waral ñu jóge si biir si biir kër kër kër bi. donc gis ngeen bureau yi nekk foofu noonu ak magasin bi donc ñu bëgg exposé fii nii suñu bagage voilà et puis tout ça ça va alimenter par par solaire hein. lii nii yëpp solaire moo koy tu as vu nga seen ñu def ñu def installation yi ba ba pare ni incha quatre boutiques yep nga sen ce sont nos boutiques donc tout ça donc euh, avec euh, euh, la mise en fréquence de la mise en service de fréquence solaire voilà donc ñun inchallah ñoy ñooy bëgg a dañuy dama bëgg ñu dama bëgg jël bagage si comme ci biir dafa dafa waxat touti xat tuuti ko ci biir inchallah gën ko te nga lii essence suñu chantier la donc tu as vu les ce sont quatre quatre boutiques yoo xam ne si bagage yëpp yëpp yëpp incha allah ay bagage lañ ko lañ ko bëgg a def ba soobee yàlla pour lépp jàppale jàppale aussi askan wi yombal leen ko donc yombal leen euh, joytu euh, maanaam yombal leen joytu joytu courant bu cher bi voilà vraiment lool loolu rek moo tax instant ñu am yéene ji donc vraiment investir ici au Sénégal donc fas yéene jàppale askan wi ci ci facture courant yu cher yi ak njàmbar gi ak tamit néegu doole yi nga xam seen loxo jot seen ginnaaw jaa ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko digtale woon depuis ce matin ba léegi ñoo ngi ànd ak yéen ak seen émission Ocass en ligne ñoo ngi jóge Mbàkke ca place publique ba tey nag ñoo ngi wàcc fii Touba Darou Khoudoss jàkkaarloog station Darou Khoudoss bi ñëw fii ci entreprise mise en mise en service fréquence solaire ci jiite Serigne Bay Longoor gis ngeen matériel bu baax yi nga xamante moom lañ exposé macha allah jàppale ndimbali ndimbali nit ñi jàppale néew di doole rek moo leen tax a jóg mise en service fréquence solaire ca kaw ci kaw ci lu baax ci kaw ci kanam ci lu baax macha allah ñu leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro seen émission Ocass en ligne